بلا يزارغ يقيني إلى الجنة باق يخيبني إذا هو بالمختار كليتي يخي ملكت بالرب المخجل الموجود بسم الله السلام عليكم ورحمة الله waaw ci délégation yi nga xam ne teew nañ fi jóge ci euh, réew mi bokk na ci délégation bu Thiès Mbaye Islam Sall moo ko jiite ak ñamu àndal délégation bu Louga Moustapha Bassirou Mbuub ak ña mu àndal ca liggéey ba délégation département Dagana Serigne Aliou Ñing délégation Saint-Louis soxna Rama Fall délégation soxna Astuwaaj délégation Diourbel soxna Ndey Njaay Manel délégation Mbàkke soxna Joor Gay asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Jili mu sëriñ Modou Fati Xari ak sëriñ cheikhu naa moom sëriñ Mamor eh, ñoom it nañ fi kon sëñ Mourtala moom sëñ Abdou Fata mi nga xam ne moo jiite commission sociale di ci liggéey liggéey bu am solo ak jàmbaar yi nga xam ne ñoom lay àndal guddi ak bëccëg muy tàng ak muy sedd muy ngelaw walla muy taw foo leen seen ñu ngi ci yité mbokki talibé yi commission sociale ci njiital sëñ Mourtala ñu ngi dem ci barab yo xamné bari na ño xamné dinañ def Touba ñaar fukki at te bo leen laajee barab yoy duñ la ko wax bari na ño xamné amna ñeen fukki at bo leen barab yi na leen ndax mus ngeen fa ñew la wax kon seigne Mourtala moom la jox cadeau euh, gi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 suñu kilifa yi nga xamne ñom lañu bokal jotaay bokkal jataay bi tey doglu ngant ci kàddu yi nga xamne mom moom yëkëti ci seen kanam waye liggéey bi moko moko laaj ñi ngi ñaanal Cheikh Mamadou muntaha suñu borom yagal ko fi lool ci defal ko wër ba mboolem naal ak yeen yi nga xamne amna am ko ngir ngir liggéeyal ko l'islam ci ci yoonu ci sëriñ bi mu àggale ko te tañu and ko ak mom ba mu naalal yeneen di siyaara ba baax kilifa yi nga xamne ñoo teewe jotaay bi tàmbalee ko ci alaaji sëriñ tàkku mu Cheikh Amadou Fadal mi nga xam ne xëy si na fi ci suba waaye di leen nuyu bu baax ci turu di nuyu bu baax sëriñ Abibu Mbàkke mu Cheikh Amadou Fadal ak sëriñ Abdoul Ahad ak président sëriñ Abdoul Fatah Gueye ak mboolem kilifa yi teewee jataay bi yëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant bu baax tey di leen jaajëfal tey di leen masaw bu baax ci coono yi ndax jamonoy koor moom neexuta néexut a xëy di dem ci barab rawatina barab boo xam ne nii da nga fay am euh, tookaay bu xaw a yàgg kon ñu ngi leen koy massa bu baax te di leen ko jégalu di nuyu mbooleem soxna yëpp xam naa bu ñu tuddee soxna Bintu Mbàkke mu muse Abib mi nga xam ne moo leen jiite dana mën a yóbbaale mbooleem soxna yëpp ak fu a nekk xëy na buñ duggee ci lim bi mën nañoo mën nañoo bañ a matal ñi ngi sant ñi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci région yi ñëwoon ci bis bi ak ñi nga xam ne ñoo dëkk biir dëkk bi ak ñi nga xam ño nek ci bitim rew ñëpp rek ñu leen di wax wa diaspora bi seen kaddu serigne Cheikh na lo yëkkati won nako ñi ngi siyar bu baax sëñ Abou Bousso ak serigne Modou sek ak mbolem ñi nga xam ñom ñoom andal liggey bi ñëpp di jaarale ci loxo soxna Rama Diouf mi nga xam mo leen jité di di ñaan suñu borom dolli yermane ak njéggal suñu bokk talib yi nga xam ñom ak ñun ak ñom ño doon ànd liggey bi ci jamono ju nek buñ ci tuddee moo Modou Mamoun Gadiaga ak suñu Ahmadul Khadim Jaxate ak suñ ñaari bokk yi nga xam ni ñoo lool woon ci jamonoy opération defar yoon yi muy sëñ Ahmadou Jaxate ak sëñ Cheikh Sidda danañ mën a yóbbaale mboolem bokk yi nga xam ne ñoo jiitu ñëpp ñu ngi ñaan suñu borom doolu leen yërmande ak njëgal waaye di siyaara bu baax sëñ bi sëñ Abibu ci suñu mbokk moom fi bàyyi ko dem muy sëñ sëñ Alhaaji Buso ñu ngi ñaan suñu borom doolu ko yërmande ak njëgal xam naa ku mel ne sëñ Basiru mu sëñ Abdul waroon naa teew jataay bi waaye jombul ne xew-xew boobu dabee moo tax ñu ngi koy jaar te mook sëriñ bi ñoo ci bokk ab taxawaay kon ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax te ñaan suñu borom dolli ko yërmande ak jéggal di sant mboolem ñi nga xam ne nii ñoo jàpp ci liggéey bi suñ ko waxee nag mën nañoo sant waa Touba Kanam gépp rek ak fu ñu mën a nekk waaye di sant bu baax waa comité directeur ak waa commission finance wa biro exécutif ak mbollem commission yi nek ci Touba ci kanam yep di sant bu baax wa communication ci njital seigne Moustapha mbay ak seigne Cheikh Amar ak mbollem ñi nga xamne ñom lañu la liggey bi waye di sant bu baax wa so organisation njital seigne Babacar Lo ñom ñi nga xamne ni barab bi ñoko don taxaw di sant bu baax wa massification ci njital seigne baram bakke di len sant bu baax seenu taxaway di sant bu baax wa commission scientifique nga xamne seigne Abdou Njaay mi nga xam ne moo doon modéré ci ñoom la bàyyi ko ci njiital sëñ Mamor ak sëñ Saliou Jaxate ak mboolem commission Touba ci kanam yëpp rek di ko sant waa commission féminine ci njiital soxna Bintu Mbàkke mu sëñ Abibu ak mboolem commission yëpp rek xëy na commission yooyu mooy yi nga xam ne ñoom la ñu doon jëflanteel di bu baax suñu mbokki soxna yi ci teewaay bi ndax jataay yi Touba ci kanam yëpp bu ñu ko xoolee daanaka soxna yi ñoo fay ëpp waaye noonu ñu fay ëpp tamit ci jëf ji day mel ne ñoom ñoo cay ñoo cay jiitu kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di jaajëfal bu baax sunu bokk yi nga xam ne ñoo doon def waxtaan wi muy sëñ Fallou busa mu sëriñ Assane Bousso ak sëñ docteur Khadim Bamba Diagne ci jàppandal gi nga xam ne moom lañ def ba waxtaan wi biñ ko xalaatee bëgg koo jëmmal rek ñoom ñaar ñëpp dañ cee am ak cawarte ak pas-pas boo xam ne nii ñun ñu leen daanaka soññu leen sax man mi di wax mali ñom ñoma ma ci barab bi muy sëñ khadim Bamba bayiko dakaru ñew fi te tel na fi ñew lol sëñ fallu bu Assane itam danaka jiitoo na ma fi lu yag yag yag yag ma sok di ñew ñi ngi leen di sante bu baax ci seen teewaay loolu ngeen du def don ko def ngir jëmm sëriñ bi yalla na ngeen ci taseeg ngërëmam ak tawfeexam di rafetlu bu baax waxtaan wi nga xamne ni mom lañ doon def te mu ñew ci waxtom muy naka la nit ki di genné defay ci xelam genné ci ak ndol dugg ci ak am ndax ñi doon def recensement bi wala ñi nga xam ne danañ faral di jëflanteeg ñoom ci social bi lu ci bëri da ngay jox nit mu naan lay yàlla nga fi yàgg ñëw te yàgg ñu fay fekk kooku day mel ni kon daa jàpp ne moom même déwén ci anam yi nga ko fekk moom nga koy fekkaat te nit ki euh, war naa mën a jóge ci ak ñàkk dem ci am ndax euh, sunu borom moom euh, képp koo xam ne sabab sabab sabab lu nga te mu ànd ak tawféexam mën na laa defal ndimbal kon thème bu am solo la boo xam ne ñëw na ci ñëw na ci waxtoom di rafet lu baax tamit sëñ Abdou ginnaaw bi tax li xaat yi nga xam ne moom la ci teg te moom itam bokk na ci wala mën naa wax ne sax moom moo tànnoon thème bi wax ne dañ dafa bëgg ñu waxtaane ko gis nañ bu baax tomb yi nga xam ne moom la ci moom la ci yokk loolu tamit ñi ngi ñaan ñu def ko mu doon ab bind boo xam ne nii conférencier yi bu fekkoon ne am nañ sax texti bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane dañ koy jël boole ko ci li nga xam ne ni moom lañuy wéyale sunub liggéey bu fekkee ne am nay vidéo itam ñu mën koo jël di ko jàngataat ndax lu am solo la loolu lépp nag mënees na koo tënk ci li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa waxoon rek ne ku bëgg teraangay àllaaxira da ngay nangoo jaamu yàlla te sellal ko te sax ca waaye ku bëgg teraangay àdduna dangay nangoo liggéey te bañ a yàq kon nday mel ne thème bi moom ñëw na ci waxtoom kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax xam naa li sëñ sëñ mambay si la leeral na recensement bi ni ñu ko doon defee xam naa ñu dolliwaat ci lenn rek loo xam ne nii mën nañ ko cee yokkaat ci recensement bi mooy comme ni ñu ko xamee rek bu ñu waxee ne dañoo bëgg a ay doomu aadama nangami doomu aadama ci ab lim tekkiwul ne ki nga xam ne moo jiite commission bi moom mooy dem tànn doomu aadama ya wala sax nit ñi ci moom la ñuy jaar déedéet Touba Touba Ca Kanam doxewul noonu dañ ko nos nosin woo xam ne nii lu ci nekk ak ñam war a jaar dañ koo xaajoon ñaari xaaj nag xaaj boo xam ne nii dañuy sàkk ay équipe équipe bu nekk dañ koy wax rek ne ko jëmal penk ñi ñu loo leen gànnaar ñi ñu jëm leen sowu ñu jëmloo leen saalum bu ko defee ku ci nekk am na lim boo xam ne moom nga war a recensé boo koy recensé tamit lu ci bëri nit ki fa mu dëkk duñ ko fa yebal dañ koy yebal faneen fu mu dëkkut ngir bañ muy tànn ña nga xam ne ñoom la xamanteel bàyyi ñi nga xam ne xamu leen xamu xamu leen ndax li ñuy séddalee ñëpp ñoo ci yam képp goo xam ne yaa ngi ci dëkk bi rek yaa ngi mën mi yéen ci yam am na tamit ab lim boo xam ne dañ ko bàyyi woon ci sees bi ngir nañ ne am na bokk yoo xam ne dañuy jóge fu sori ñëw bëgg euh, bokk ci ñi ñuy jox te su boobaa tamit di leen wax ne leen dañ ko dañ koy recensé loolu tamit dana a metti moo tax na lim buñ fa bàyyi woon boo xam ne jël nañ ca lim bu bëree bëri ci kaw loolu tamit séddaale nañ ci daare alxuraan yi ak association handicapé yi ñu ngi nuyu bu baax soxna May Mbàkke moom mi nga xam ne nii benn ci kuréel yooyu moo leen jiite mu jotal nañ suñu nuyoo ci mbooleem suñu bokk yooyu nga xam ne nii seen i cër dafa xaw a manqué ñu ngi leen di ñaanal bu baax suñu borom dafa leen tawfeex ak ndimbal bu ñu waxee handicap nag ñun ñëpp ay handicap lañ ndax dañuy wax yàlla rek moo mat kon baat aw baat la rek ngir ñu mën a xam liñ bëgg a wax waaye ñun ñëpp ay andi ay handicap lañ kon noonu lañ ko séddale woon waaye jamono bii ñu toll ñu ngi amoon yéene jàppale lu tollook ñetti junniy borom kër. mooy bi nga budget bi nga xam ne dañ koo tegoon wax ne buñ ko amee dana baax loolu tamit ñi ngi ko doon xayma ci 63 million juróom-benn fukki ak ñett lañ ko doon xayma waaye fii ma taxaw di waxee rek liñ liñ bind ci ëpp na ëpp na 3000 familles ñu ngi ci 3224 familles ñetti junni borom kër ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent bind bindagun na leen te teewut am na beneen liste d'attente boo xam ne nii ma ngay xaar ca siège ba ña nga xam ne dañoo ñëwoon fekk ñu bind ba noppi ñu jot faa bind ñooñu ñu ngi toll ci 189 jaboot téeméeri borom kër ak juróom-ñeent ak juróom-ñett fukk ak juróom loolu nag bu fekkoon da leen bëgg a jox ku nekk lim ndimbal yi nga xam ne moom lañ bëgg a joxe muy ku nekk benn saako ceeb bu 50 kilos ak juróomi kilo yu suukar ak juróom-benn téeméer juróom-benn téeméer yi jubluwaay bi mooy buñ joxee nit dara mën naa am du am fu mu ko yóbbu ndax amul pass bu ko yobul ñu jublu ci ñaat ñent téeméer yi mu doon pass bi ñaat téeméer yi nak doon tàndarma ji nga xam mom la ci wara bolé lool nak buñ ko xeyma liñ jënd ci suukar pour war ko jox doomu adama yi toll na ci 19 19 ton 0.76 fukki ton ak juroom ñent fukki ton ak juroom ñent su ak lu top moom lañ moom lañ xayma ngir mën a satisfaire ñi nga xam ne ni moom ñoo ñoom ñoo koy sàkku loolu ci xaalis mi ngi toll ci quinze millions trois cent quarante cinq mille fukki millions juróom ak juróom benn fukk ak juróom-ñeenti junni li nga xam ne moom la ñuy woo pour trois mille deux cent vingt quatre yi ñu jox leen ko ci ceeb loolu mi ngi toll ci cent soixante et un tonnes virgule deux mooy téeméeri tonnes ceeb ak juróom benn fukk ak benn 3000 francs yi nga xam ne moom la ñu war a jox 3 3224 famille boo leen bëggoon a jox ku nekk 3000 francs loolu mi ngeen doon 9 millions 672 mille juróom-ñeenti million ak téeméeri junni ak ñaar ak fanweer ak euh, ñaari junni ak ñeenti téeméer mooy 3000 3000 yooyu ñuy wax kon ci waxin wi day nuru lu yomb waaye lu jafe jafe la boo ko bëggee boo ca bëggee dox jëm ja ci kaw loolu nag bi ñu defee waxtaan démb li nga xamne mom moom lañ amoon ci ab ciep budé sugar ci si moom mat na dana maté ñin bind ñëpp budé ci pass yi tamit dana maté ñin bind ñëpp waye budé ci ciep bi 3300 sac trois cent saak lañ amoon démb muy eh, junni saakuy ceeb ak ñetti témèr mom lañ am te ñi nga wara jox ñetti jooni borom kër ak ñaar témèr ak ñaar fuk ak ñent kon day melne li dess ci ciep bi ngir ñëpp mëna am dess na cent 1924 saako ceeb mooy 100 tonnes yu manqué tuuti rek téeméeri tonnes yu ceeb yu manqué tuuti moom la ñu war a amaat ngir ñëpp mën a am kon ci kaw loolu la wax ne bu dee ci wàllu mbind mi moom mbind mi daanaka ñi nga xam ne ñoo fa nekk nii sax pour ñu am leen ñoom ñëpp wóoraguñu kon daanaka keneen kuy ñëwaat bees dana jafe lool ñu mën la cee boole xëy na nag lu mel ne kori gi wala yu demee noonu mën nañ cee bokk lii ma wax nag bu ñu ko doon xayma ci xaalis mooy 76 millions six cent un mille mooy juróom-ñaar fukki million ak juróom-benn ak téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñaar téeméer mooy trois mille deux cent vingt quatre yi waaye lii nag daaree kaamil yi bokkuñ ci ndax bu noppee ci lim bi war nañoo dem ci juróom-ñaari daaree kaamil yoo xam ne nii mi ngi bàyyi ko woon ci ndigalu suñu Abibulahi Mbàkke yàlla na fi yàgg loolu te tàmbalee ko ci daaree kaamil ju njaareem daaree kaamil ju daaru daaru muxti daaree kaamil ju daaru xudóos te sëñ soy bu daaru minan ak mbàkke xewar ak daaru salaam juróom-ñaari daari kaamil yooyu yëpp war nañ faa dem te lim yeen fay yóbbu bokkut ak lim yi nga xam ne moom lañu doon tudd léegi buñ noppee tamit war nañoo dem ci ndog yi nga xam ne daayira muxaddamatul xidma ñu ngi koy def ci jumaa ji muy bokk yi nga xam ne amuñu fun doge di fa ñëw war nañ faa yóbbu ay xewal yoo xam ne nii lim ba dana takk lool te loolu tamit bokkut ci lim bi ma doon wax léegi ba noppi gannaaw loolu tamit dana dem ci orphelinat maam jaara bi nga ñi nga xam ne ni ñoo am seeni waajur xëy na toppatoo ba des na wala sax xamuñu seeni waajur fan leen yóbbu foofa tamit am na xéewal yu fa war a yóbbu ak yeneen ndimbal yoo xam ne war nañ koo def ba tey itam ñi ngi am yaakaar ak yéene buñ demee ba li ñuy bëgg ñu am ko nañ ko bëggee bëgg nañoo dem ci daaray Seexul Xadim ji nga xam ne ni bu yàggu Touba ci kanam barkeeloo na ci téeméeri million ca ba muy tàmbali jël fa ab bâtiment 800 millions bi mu àggee tamit mu barkeeloowaat ci téeméeri million bëgg nañ faa dem itam barkeeloo ca daara alxuraan ji nga xam ne ñoo fa nekk ay xéewal waaye loolu nag mi ngi aju ci buñ demee ba li ñuy bëgg ñu mën koo ñu man ko ñu mën koo am kon day mel ne ci jamono bii may waxee li nga xam ne moom lañ war a def ci social ramadan bi dana ëpp 80 millions di dem loolu nag bu ñu ko xaymaa ak daaw day mel ne kon euh, ren yi moo ëpp fuuf li nga xam ne moom lañ doon def daaw kon day tolloo rek la sëñ bi waxoon ne sama tey ju nekk gàccal na sama sama sama démb sama ëllëg ju nekk day gàccal sama tay loolu nak buñ ko mënee am du ñun waye ñi nga xamni ñom lañu andal liggéey bi ñoo ci def ak jàppandal tambalé ko ci wa bureau social ak wa commission social ak mboolem tuwa ci kanam gep ci kaw loolu itam ñi ngi sant mboolem ko xamni ni duggal na ci sa loxo ñi ngi ñi ngi ñëk ciant gi nak ci ñi nga xamni ñom lañu jox ndimbal yi ndax ñom dañoo ak am ak ci ñi nga xamni ni am nañ dara ñuy gess ñu amul ñi nga xamni ni seen loxo juru seen ginaaw kon ñi ngi sant bu baax ñooñu nga xam ne ñoom lañ koy jox tey ñaan suñu borom defal leen xéewal yoo xam ne ni bu ëllëgee ñoom danañ bokk ci ñi nga xam ne ñooy man bay joxe waaye di sant bu baax mbooleem ñi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo tàmbalee ko ci soxna yi fi teew ak ñi nekk ci réew ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp di sant bu baax suñu abibulaahi mbàkke mu suñ muhammadul fadal mii bu baax bi ci guddi rek jamono ji weesu nañ ñi ngi ci social ramadan bi waaye téewut da koo boole ak di joxe li nga xam ne moom la baaxoo joxe ci weer bi bi ci guddi la ma woo rek ne ma li ma war a jox ci mois de euh, avril bii dugal naa ko ci numéro wéef bi muy 77 914 26 68 te noonu la lay taxawoo weer wu nekk mu am lu muy jaayante ci social bi kon ñu ngi koy sant bu baax di sant bu baax alaaji sëriñ Tako ci taxawaayam bu baax a baax moom tamit di sant sëñ Abdou Lahat ak mbooleem kilifa Tuubaa ci kanam yëpp rek bàyyiwuñu kenn xëy na boo dee lim moom faaw ma tàmbalee ci kenn waaye ñëpp la ñuy sant bu baax a baax di sant soxna soxna yëpp tàmbalee ko ci soxna Bintu ak mbooleem soxna yi fi teew ñëpp rek xëy na bu ñu tuddee soxna maam Awa Touré mu Sëriñ Abdul Xaadir ak soxna maam Faati Mbay ak soxna Njaxat mu Cheikh Abdul Ahad ak soxna Mbay ak soxna Bintu Sarr ak soxna Abi Mbàkke mu Sëriñ Abdul ak soxna Nday Njaay soxna Nday Njaay Maneel Jaareem ak soxna Jàbba Sëy euh, Dakar ak ñoom soxna Faat sawu ñu bàyyi ko Dakar ñoom Sëriñ Musaa Basiru Mbuub dana mën a yóbbaale mboolem ñi fi teew ñëpp ñoom sëñ Mbay Islaam ak ñëpp rek képp ku ñu tamit jàppal ne suñu kàddu yi ñuy wax daanaka amu ci solo li ci am solo mooy sag cant danañ ko àggale fan ko war a àggale mooy bu ja aajo woo defal vidéo danañ ko def bu aajo woo tamit def affiche danañ ko def xëy na doomu aadama moo mata moo matadi ba buy lim mën naa bañ a matal ca ca lim ba nii ñu ko defee ci biir koor koor gi tamit insha allahu rabbi fas nañ yéenee bu ne koor gi des na ñetti fan ñu defaat beneen recensement boo xam ne dañuy dem ci suñu bokk yi xam ne nii seen loxo jotu seen ginnaaw ñu man dee a am luñ jàppalee luñ leen jàppalee ci bisu korite gi ndax sakaatul fitri bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ko farataal ci bépp julit xikma bi mooy nit ki am lu mën a toogee këram ba du soxlaal kenn dara lii nag du sakaatul fitri waaye ay bokki taalibe leen yoo xam ne nii dañoo bëgg taxawu seen bokki taalibe ndax gis nañ ne dëkk bi ku fi ñëw rek yaakaar moo la fi indi moo tax danañ defaat benn recensement boo xam ne ñi ngi koy xayma ci ñaar fukki millions insha allahu rabbi gën gaa néew man koo jàppalanteeg suñu bokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ngir bésu korite ga ku nekk mën a toog sa kër man faa dundal bis bi ñu fàttalee ne itam lii nu koy def ci dëkk bu mel ne tuubaa mën naa am ñu bari ñu gis ne Touba xanaa li ñuy dégg di wax ne dëkkum ndimbal la dëkku yërmande la xanaa dafa amul déedéet am na fi bu baax a baax mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi koo ci dem këram yaakaar naa ma ngay dundal ay nit ñu bëri ñoo xam ne nii bo doon xol sen sen xalaaxa manam sen relation ak seigne ba sax wul nonu manam man na am bokku ñok mom dara man na am sax seigne ba xamu leen ab seigne bo xam da ngay dem kërëm ñu lay wax ne seigne bi dafa tëju nga yaakar ne seigne bi xeyna dafa da bëgg du tëju rek waye la waral mu tëju moy dem na ba joxe lam yoron ba amatul lum mu joxe te munta gantal nit ñi motax mu tëju léeg-léeg tamit nga dem ci kër kilifa dajé fa ko xam ni xeyna ci gis-gis japp nga ne mo la ëppum kom nga yagg fa lol mëno gis seigne ba moom mu ñëw rek àgg ca sëñ ba ngay ñax ñaxtu di wax ne sëriñ si dañuy gën a ñi nga xam ne dañoo am ak ñi nga ñu ëmbut te fekk booba du loola yow da bëgg lu la sëñ bi jox kii moom day jox sëñ bi te li ko li li joxe li muy jox sëñ bi xelal la sëñ bi jox yow kon boo njëkkee dugg kooka waa gi sëñ bi du am lu la jox kon dëkk bi dëkk bu yërmaane la boo xam ne ngi def taxawaay yu am solo dëkk bi yaakaar naa démb rek gis ngeen taxawaay nga xam ne sëñ Cheikh mu sëñ Saliou def na ko ci fii sëñ Mountakha mi gis ngeen taxawaay bi muy def ak yeneen kilifa yëpp ci loolu lañ nekk kon Touba ci kanam tamit dafa ñëw di gën a formaliser loolu waaye naka jekk dëkk bi dëkku dëkkub yërmaande la dëkk bi dëkkub xéewal la dëkk bi dëkkub daw làqu la te loolu du dañ bu mukk ndax su sëñ bi ñaan na ko ci dëkk bi te suñu borom nangul na ko lii ñu doon def itam initiative bi doonul lenn rek lu di sëñ boo xoon ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine te saxaaba yi dañu daan dimbalante di taxawu seen seen seen seen seen seen i mbokk moo waral itam ñun ñi ñuy fas yéenee taxaw suñu bokki taalibe te sukkandikoo ko ci projet de société bi nga xam ne moom la ñuy wax Matlabul Fawzayni te sëñ bi ñaan fa boromam lépp loo xam ne nii bëgg na dëkk bi mel ko te sëñ bi ci boppam eh, bi mu ci tukki bi ñaari xasida yi nga xam ne ni moom la def muy ñaari yi nga xam ne nii bu ci nekk ci yaa la tàmbulee muy yaa xayra dayfin ak yaasal bu saaraati benn bi bi nga xam ne ni ci la weer wi di dënmal la ko def benn bi bi nga xam ne ci la weer wi tàggoo la ko def ñaari yëpp wax nañ ne bi mu koy def ci digënté ñaari ya khayra dayfin ak ya sal busarati digënté bi sëñ bi jëfandikoo fi lo xamné ci cin moo ko kon day melni kon sëñ bi mi ngi won ci ay jafé jafé yu metti bam nekké ci dëkk ba bam nekké ci tukki ba waye lam fay nekk lepp jamono ju nekk xelam mepp mi ngi jëm ilahi ila ya wa salliman wujud wujud samma wa mini turba yasir rujuhi li Tuubaa wahmini wahini asal wara wa tuti bi sama iskana rabbi stajib waltuka mil mana way tulada tubalati bi katub nafika mun yaana kon fu seug mën nek nyan rek limi ñaan moy dirsi wat tuba ba eh, lim fi yene lepp sun borom defal ko waye sun borom natt ko ba danaka jotu fe yag juróom-ñaari at la fi def fi dirsi waté moy dirsi watam gi mo fi dirsi waye lepp lu mata ñaan boromam ni ko sëñ Muntaxa di waxe lepp lu mata fagu fàggu bi nyan nako lepp lu mata ñaan bi ñaan nako te sunu borom du neenal ay ñaanam ndax moo wax ne tarata rasulallahi lii fata fawqa malla bi min allahi wa raja rabbi la yu xayam bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam sàkkul na ko ci boromam lu kawee njortam te suñ borom du tas yaakaaram waaye tamit du tas yaakaar yi ñi ko yaakaar kon ñu gën a dëggalaat suñuy pas-pas rek te gën a góorgóorluwaat ci liggéey bii nga xam ne mooy Touba Ca Kanam te bañ a féetewoo li nga xam ne ni sama classe gi moom la ñuy féetewoo mooy bu Touba Ca Kanam fexee ba monté ay làmp ci mbedd wala mu defar assainissement wala mu defar ay poste santé wala mu former ay sëriñ daara nga naan waaw leen góor Touba Ca Kanam yéen ay jàmbaar ngeen li li war mooy da war a fexe ba bokk ci jàmbaar yooyu ndax Sëñ Abdoulaye daana wax ne lépp lu nit rawee nit ëllëg ba mu koy def ma nga taxaw di ko xool kon ñu lu ci bu baax ñi nga xam ne sañ naa leen ko wax di fexe ba weer wu nekk ñuy joxe ñaat téeméer ci Touba Ca Kanam ndax loolu mooy tax liñ bëgg ci dëkk bi ñu mën koo te buñ ko réaliser dëgg la sëñ bi lañ ko defal waaye suñ bopp lañ ko defal ndax sa koñ lëndëmoon na leer na léegi amoo woonum ndox am nga ko léegi amoo woonu yoon am nga foo amee yoon léegi amoo woon bërëb bu fajukaay nga ko léegi te loolu lépp mi ngi aju ci ñaar téeméer yi di joxe par weer waaye ñu góorgóorluwaat bu baax ci commission bi nga xam ne mooy commission sociale nga xam ne bokkut ak ñaar téeméer yi waaye ab jaayante lay doon boo xam ne nit ki mooy seet li nga xam ne moom la ko yàlla man loo mu di ko def di tàmbalee ci dërëm bala man mu di ko def ñu góorgóorlu ci baax ndax loolu tamit moo ñuy mën a dimbali ba ku wéradi bo ñëwé ci seesu tubaa ci kanam ba nga bañ fa yàgg ko mbut fo dëkk bo ñëwé nga bañ fa bañ fa yàgg ko mbut lo dundé tamit bo ñëwé nga bañ fa nga bañ fa yàgg loolu ñu li ñu koy may moy jaayante bi nga xamné mom lañu jox kon ñu ngi ci sant bu baax di sant ñi nga xamné ni bis bu nekk tamit ñoo ngi japp ci liggéey bi ñooñu mën nañ ci tuddu ñen rek amna ci ñoo xamné ne wu nekk dañ ci japp amna ci ñoo xamné tamit jamono yu nekk ci événement yu melni dañ ci japp bu baax a baax ñooñu mën nañ ci tuddu alaaji serigne Seck C3 16 ak El Hadj Moussa Seck point 1 ak sëñ euh, euh, sëñ sëñ sëriñ sëriñ sëñ Cheikh sëy di porom ak sëñ Basiru mu sëñ Xaadib Aw Ba ak euh, sëñ Maxtaar mu sëñ Modou bu Sëñ ak sëñ Fallou sëñ Fallou Galas Mbacké Maane mi nga xam ne nii ban tàmbalee liggéey ba léegi jamono ju nekk rek li muy joxe du ci xaar kenn da koy joxe ca saasa di sant bu baax sëñ sëñ Maxtaar Jenn moom tamit jàmbaar la bu baax di jàpp ci liggéey bi di sant bu baax euh, sëñ Souley Diagne ak euh, sëñ Abdoul Ahad Kamer moom tamit yónnee na fi ndaw ba noppi yónnee na fi ay xéewal ñu ngi koy sant bu baax a baax di sant bu baax ku ñuy wax sëñ Abdoul Karim Fafana sëñ Xaadim Amar ak mboolem ñi ci jàpp ñëpp rek ak commerçant yi xam ne ñoo nekk ci Touba te sëñ Maam Thierno Ndiaye woon ko àndoon ak sëñ Modou Dieng ak sëñ Modou Boussa Ba ak sëñ Balla Mbodj demoon ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a sant bu baax ku ni sëñ Antoine Félix Diome moom tamit jàmbaar lool chaque weer am na lu muy jàppee ci ci commission bi te bëggul ku ko fësal yaakaar naa ñi nekk ci groupe bi Touba ci kanam yi rek ñoom ñooy xam ne mi ngi mi mi ngi ciy def kon ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant bu baax sëñ Abdul Karim Fafana ak mboolem ñi ciy jàpp fu ñu mën a bàyyi ko rek xëy na ñii mooy ñi nga xam ne sama xel sama xel teewlu na leen waaye ñoom ñëpp ñu leen di sant bu baax di leen jaajafal di ñaan suñu borom defal leen lu kawe seen jot di dénkaat sama bopp dénkaat ñi nga xam ne nii eh, sañ naa leen dénk di sant bu baax nag Cheikh Mamadou Mountakha di ko beral ak cant sëñ Mountakha ko suñ Cheikh mii dana ko faral di wax ci ay soññeem naan ab ab royukaay la waaye ab royukaay la ci ci ci yu bëree bëri ndax fi mu toll te bari na ci ndimbal yoo xam ne sëñ Mountakha moo koy joxe waaye moom mooy wooteel boppam te bu wooteelee boppam ku ku ñàkk war ku ñàkk jot la war a doon waaye waxtu yi muy woote ak temps bi mu ciy jël da nga xam ne kii xettali mbindeef yi dong moo ko ñor ba ci kaay yi nga xam ne dañuy dem ci ñoom lu mel ne suñu bokk yi nga xam ne ni doon leen leen defar ay néeg te ñu xaw a am ay cër yu xaw a wàññeeku ñooñu sëñ bi ci boppam moo daan laaj ndax ñooñu fu seen biir toll kon kon euh, sëñ mu taxaw daal ñaanal ko nañuy def su su fekkoon ne mën naa wax saxal damay ñaan suñu borom saxal ko fi man suñu borom saxal ko fi mu yàgg fi loolu te wér di sant bu baax waaw ñu ngi sant bu baax tey suñu bokk bi nga xam ne nii moo joxe euh, juróom fukki ton donte xam nañ ko waye mo sakku nak ñu baña wax aw turam te yéeneem téeméeri ton la won téméré ton la waxone mom la joxé waye ginaaw bi am ay bokk yo xam té tey ko don sakku ay ay ay xéewal motax mu indi fi juroom fukki ton yi ñu ngi koy sant bu baaxa baax di ñaan suñu borom fay ko lu kawe njort di sant bu baax sëñ basirou mu sëñ Abdul Xaadir ci ab Wa ci fann yu bëré bëré waye ci ab taxawayam tamit ci commission sociale bi ak taxawayam ci Touba ji kanam ñi ngi sant ñepp di jéxalé suñu cadre rek ci suñu bokk ndaw yi ñu gën a tënkuwaat ci ndigali sëñ bi te mooy fexe ba tënku ci ndigal te moytu lépp lu ay tere tey fa fàttaliku bu baax li taxoon sëñ bi sant dëkk sanc sanc dëkk bi te mooy jaamu yàlla ak tege ci sunna moo tax sëñ bi sanc ko ñu xam ne tamit dëkk bi li sëñ Abibu di wax naan eh, nii a xew nii a gën da koo gën bari na ay xew-xew yoo xam ne day am ci yeneen dëkk xëy na dafa xew waye nak dëkk bi bokku ak dëkk yooya kon ñi ngi sant ñi ngi soñu suñu bokki ndaw yi nga xamni ni ñoo tolok ñun ñu tënkuwaat ci ndigal señ bi waaye tënkuwaat ci li nga xamni fu yoonu murit ag moñu fa àggali te muy tënku ci kliftef muy benn baat bo xamni ni bu waxee ñepp def waye bu nee nañ taxaw ñepp taxaw te loolu ñu bari bëgg nañ ko waye amuñu ko te loolu ma ngi gis ne mi ngi am ba léegi te ba faawu tamit day am ndax ndax mbirum señ bi du delta ginnaaw day jëm kanam waye ku ci nekk war nga cey japp dañuy wax ne yoon sëñ sëñ suba dana wax naan sahaba yi ñooy seen bàyyi ci diine dina faral di dégg tamit ñu wax ne sëñ bi nee na ku ko def na yonente bi defoon na defoon ku ko def na sahaba yi defoon yonente bi mu def la na na yonente bi defaloon sahaba yi te sahaba yi leen suñ borom jàngaloon mooy li li ma gis ci réseaux sociaux yi léegi mooy interpellé da ngay gis kuy wax naan maa ngi interpellé sëñ Muntaxaa inna te loolu inna lasina yunaadunaka min waraa'il hujuraati aksaruhum la yaqiluun wala anhum sabru hatta takhruju ilayhim lakana khayran lahum lol alquran ko wax ñi nga xam ni ñoo ngi woo yonente bi nek ci ginaaw tàbbaat ba ñooñu ñooñu day eh, buñ bayyi won ba yonent bi genn ñu wax ak mom mo gën ñoom kon ku am loy wax wala nga am lo bëgg wax sëriñ bi sëriñ bi amna na ay ndaw yu dox seen digënté ak ñoom am na tamit mbir mu nek am na ñu ko denk li doon gën ci ku dëkk tuba moy nga dem ba ca ñoom nga wax leen da ngay wax ci ay teggine ndax sëñ bi moom jariñ nit ñi moo ko fi indi waaye loolu njariñ nit ñi indi indi ko fi te Cheikh moom mu taxaw mi fi nekk tamit loolu la fi rek la fi nekkee inna lasina yaquduuna asfaatahum inda rasulillah ulaika lasina amtaxana allah xulubuhum li taqwa lahum maxfiratun wa ajrun xasim kon loolu daal laa doon dolliwaat rek ku nekk mën ngaa nekk fa nga bëgg a nekk waaye nag sëñ bi moom nañ fexe ba li ñu liyee ak moom te mooy topp ay ndigalam fonk kàddoom nañ fexe ba way ci di ko soññi sama mbokki ndaw yi nga xam nii sañ naa leen soññi di santat bu baax ñëpp di jaajëfal ñëpp xëy yu gudduna waye xol bu sedd rek moko moko lal di beral ak cyant bu baax nak soxna yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax baax baax te ñaan li ngeen bëgg yéen ko xam yalla na ko suñu borom defal ci mbaaxu sëriñ bi di santaat suñu kilifa yi bu baax a baax ñoom tamit ndax mépp mbir mo xamni ni jital nañ ci dañuy top bu ngeen ci ca ci boobee bobé lepp luñu xam ci lu koy rafetal ñu ñukoy wax kon ñu ngi leen di sant bu baax di jaajeufal ñep xeyna bari lu luma bayyi di sante bu baax suñu bokk journalist yi nga xamni ne ñoo fi teewoon di ñu mbir yi di sante ñepp rek bayyi wuñu kenn kuntu de kuntu du ñepp dal ñi ngi ñaan liggéey bi nga xamni ni eh, mom lañ sumb muy liggéeyal Seigne Touba yalla nañ ci tassé gëreem ak tawfeexam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu léegi il ñu dellu soir fii sëñ mën nañu eh, ñëw installé wu fii Babacar sëñ sëñ sëñ Abdoulaat moom sëñ Abibu mooy wax ci turu sëriñ Abibu Mbàkke di beral cant eh, kàddu cant ak ngërëm soxna Joor soxna Joor Gay bu Mbàkke di ko jàmbaare ji commission sociale bu Touba ci kanam teel naa teew lool jotaay bi ñu ngi koy sant turu waa commission sociale bu Touba ci kanam gépp sëñ Motulaay itam ñu ngi lay jotal kàddu sant ak ngërëm bayiko ci bureau social bu Touba ci kanam ci sen andine ak sen taxaway ak ni nga ak ñom itam di solo dara sa digg ak ñoom réyaloo dara sa ak ñom tayit amut lenn lo xamne dang ko def ci do ci diisoog ñom itam lool nak ñu sàkk won ci ne ci kanamu mbolo ak ci kanamu kilifa yi nañ ngeen ko sédel ne ñi ñu la bolel ci bureau social bu Touba ci kanam sant nañ la gëreem nañ la naw nañ tayitam am nañ ak yem sax ci ànd bi nga and ak ñom ak ni ngay ak ñom itam ndax seen kilifa nga ci gépp wet waaye nag teewut amul lenn looy def te doo ko diisoog ñoom kon ñu daal def rek mooy kàddu gu mujj gi muy kàddu kilifa yi ki koy jooxe di ko jàllale mooy sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Abibu di jëwri nii ni euh, sëriñ Abibulahi Mbacke moom Cheikh Abdoul di ci Touba ci kanam kon sëriñ Abdoul Ahad Mbacke euh, moom la ñuy waajal nii kon su ko defee mu daal di ñëw jàllale kàddu kilifa yi suñu paree rek daal di ñaanalante bu ñu noppee ci ñaanalante gi ba pare nag ci la ñu daal di jublu nag ci magasin yi mooy juróomi magasin yi nga xam ne amee nañ ko ngir man cee def séddale boobu bi ñuy war a def mu toll ci 3224 famille di ñetti junniy famille ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. association jigéenu Bamba yi ñooy amal nag benn conférence dimanche 9 avril ci kër Serigne Touba Gathia Sor loolu de waa Ndar la xam naa soxna Rama moo joxe information yooyu di ay jàmbaar ñoom ca Touba ca kanam. kon kaddu yi nga xam moy kaddu seigne Abibu wa soxna Ñang Mbàkke ak soxna Nafi cham ñu ngi len di sante ñomit bu baaxa baax association jigeenu Bamba yi mustafa Moustapha mu serigne Mamor serigne mourtou lang koy sante bu baaxa baax ak mboolem wa scientifique rek كبام توا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جليدي بكي طالبي نيلين دي نيو يتور سنو كليفة سنو جاو إن شاء خبيب ممشيخ محمد الفادن ميغا خامن موي كليفة توا سي كانام mu yëkëti am nuyo bu sell ak siyar bu sell di ko jëmmé ci kilifaam di kilifa ak yoon diko ñaanal suñu borom mu yagal ko fi lool te may ko wër ak wér mbolem kon serigne Habibu mi ngi yëkëti am nuyo bu sel ak siyaar di ko teg ci kilifa gi nga xamne moy kilifa yoon yëpp Cheikh Mamadou muntaha di ñaanal sun borom mu yagal ko fi lool te may ko ak wér te lu mu naal yene ko bëgg ko defal serigne touba mu def ko nam ko bëgg tan and ko mom ci bàkki serigne diko jaajeufal bu baax ci taxawaayam aku yëgam aku bàyyi xalam Touba ci kanam ndax Touba ci kanam kat su agsee fi gannaaw yalla ak tànnuk sëriñ Touba ci ndimbalul sëriñ Muntaxa la amee kon Touba Ca Kanam amee nañ ko sant amee nañ ko ndokkeel amee nañ ko ñaan kon ñu ngi koy sant bu baax di ko sant it ci social bii ci nim ciy doxe nga xam ne at mu jot dana ci yëkkati lu am solo joxe ko te muy lu ko itteel loo xam ne moom moo koy da koy fàttali sax di ko laaj ak yeneen yi nga xam ne Touba Ca Kanam ngi ci yëngu lu mu ci yëg noonu la ciy taxawee kon moom cant gi liggéey bi ab liggéeyam waaye cant gi it ak cant ma kon sëriñ Habib mi ngi koy jiital cant gi noonu nag lay nuyoo mboolee mbokk yi fi teew yëpp di ko nuyoo bokk Touba Ca Kanam di ko nuyoo kilifa yi mbokkal yoon wi sëriñ bi yëpp muy ñu mbokk sëriñ bi ak bokk yi seex seen ñëpp di jaajëfal ñëpp rawatina nag ñi nga xam ne wuy si nañ ci bis bii te jàpp ci ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi sëñ Abibu mi ngi leen di nuyu mi ngi leen sant bu baax xam naa sëñ Motlaam sëñ Abdou Fatah lim na ko lim na ñi nga xam ne ñoo jàpp kon du jaar di ci jaaraat di ko lim day guddal jataay bi waaye li ñi mat a tudd ñëpp sëñ Motlaa tudd na leen kon ñooñu mu tudd noonu mu leen tudd tudde sëñ Abibu dégg na ko noonu kon ñooñu ñëpp sëñ Abibu mu ngi leen di sant su ko mënoon kenn ku nekk day jug ba sa ñëw ba sa kër mu jox la loxo sant la waaye la mu yëkkati téléphone am sant la waaye nag cant gii muy mu ñuy def loo yóbbaale na cant yooyu ndax yéene moo doon loolu kon nee na sant na bu baax xolam sedd na yaakaaram gën naa dolliku ci Touba kanam ndax ba mu wootee na ku ma bokkal pas-pas gis na ne taalibe sëñ Touba yu baax ñoo moom ñoo bokk pas-pas ndax wuy si nañ ko ci kon sëñ bi mi ngi sant bu baax waaye di sant nag waa Touba ci kanam rawatina nag commission bii taxaw di commission sociale waaye sant di nuyu nag ak sant soxna yi tàmbalee ko ci soxna Bintu Mbàkke moom Sëriñ Habib bi nga xam ne mooy jëw yi ñu soxna yi soxna Njaxat moom Sëriñ Abdul Ahad soxna yi ànd ak ñoom liggéey bi yëpp nag bàyyiwuñu kenn di sant bu baax Sëriñ Motlaam Sëriñ Abdul Fatah mi nga xam ne moo jiite commission sociale bi ak mbooleem nag ñi mu ko àndal xam naa bu ñu ci tuddee soxna Seyna bu seen mi ñu ko tofal ci moom ak soxna Ndey Joom mi nga xam ne moom niñ koy waxee poliwana la ci Touba ci kanam fépp fépp lay taxawee danañ ñu mën a jot jottaliwaale sant googu mu dem ci commission sociale bépp nag ndax buñ ko bu ko bu ko jot gi maye woon dañ leen tudd kenn par kenn wala fi dañ daan ku lim juum waaye kuy lim la nga xam kuy lim ca ña nga xam mën ngaa bañ a juum waaye da nga dul a matale ñëpp te mën ngaa fàtte te koo bàyyi it mu mel ne daa bokk ci jàmbaar la te mën naa am sax moo gën a jàmbaar yi ñu nga tudd moo tax ñuy tay yi dugg ci ab lim waaye buñ xasee ne sant nañ waa Touba ci kanam gépp ku ku bokk ci sant nañ waa commission ku nekk ci commission bi rek yaa ngi ci biir te commission sociale ba ñu ko waxee Touba Ca Kanam gépp ci bokk mën na maa wax lool ndax commission sociale day commission bu ubbiku boo xam ne képp ku bëgg a liggéeyal yàlla rek mën nga cee bokk kon moom ñëpp a ci bokk commission sociale bu ñu ko xasee wax yaatu na waaye nag wolof daf ne ku wal mbu tudd ab dëkk bu xasee ne ñii lañ ko dénk faaw bu ñuy sant te ñoom ñooy la ñuy tàmbalee waaye kon sëñ Mourtalaam sëñ Abdul Fatah sëñ Habibu mi ngi seeraloo mbooloo sant nañ ko bu baax a baax ci taxawaayam ci Touba Kanam ci commission bii sëñ Moustapha am na mi ko yewoon jàmbaar la ci woon lool defoon na ci pëstéef ak itte waaye nag biñ ko dénk ci sëñ Mourtala ak léegi ku ne gis na ni commission bi yokk def na ci itteem def ci jor jomam def ci guddeem def ci bëccëm temps bi yëpp yëpp jox na ko social loolu moom nun ñëpp ànd ak moom liggéey ñëpp mën nañ koo seere képp kum jàpp ne it mën nga ko cee jàppale ku ne dana jokkoo yow fexe ba nga jàpp ci loolu nag mooy itte fexe ba lañ la dénk man man mën a jëm kanam te kenn ku nekk lañ la dénk soo ca defee noonu kon lépp ànd jëm kanam te loolu lañ bëgg te suñ motulaa moom ñu ko dénk social am na ci itte lool am na ci taxawaay lool am na ci pësseef lool loolu moom nun ñëpp mën nañ koo seere te yor na ko yorin bu rafet jox na ko itte ji am laaj ngir mën ci am lañ ca bëgg loolu mën nañ koo seere waaye nag teewul kenn nit lu mu bëgg lu mu doon jàmbaar jàmbaar ak lu am am yéene kenn nit mënta sottal mbooloo mi ànd nag moom social di ko ci jàppale ba man lii mu man ñooñu ñoo gannaaw yàlla su ko mënee ñooma ñooñu ñoo moom ñoo bokk cant gi waaye nag sëñ Murtala mënuñu ko ci ñàkk jiital ndax lenn lu ne tegale bu jubee ba jiitu daa jub te moom wax dëgg yàlla ni ni mu taxaw a social ni social itteele képp ku ànd ak moom yaakaar loolu yaafus yaafus da nga jéem a xam ne lii mënoo cee ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk góorgóorlu ndax moom ci boppam wax dëgg yàlla cër yi mu am bari na waaye loolu lépp gisu ko da koo teg fee futtiku sol mbubum liggéeyal sëñ Tuubaa takku laxasaayam ne ci terrain bi guddi ak bëccëg di liggéeyal sëñ Tuubaa ci ci social bii te sëñ bi nag kenn mënu koo defal ci dëkkam bii lu gën taxawul ko taalibeem yi dimbalil ko ñi gàddaay seen dëkki maam ak seen dëkki baay ñëw fekk si ko te te moom ci boppam ba muy nekk njaareem ñameloon noonu ñu ci bari seen dépasse moo ko yowoon di leen ko jox te it bu fi nekkoon noonu la def ñu ko fi nekkal ba tey loolu jàppale nit ñi kon social bii bu jugee di taxaw taxawaay bii muy taxaw képp koo xam ne yaa ngi ciy jàpp yaa ngi liggéeyee sëñ Tuubaa kon nag ñi koy taxawee ba nga xam ne liggéey bi mi ngi aw yoon kon ñooñu amee nañ leen cant ñu ngi leen sant bu baax di sant nag mbooleem ku ci wuy si di sant mbooleem ku ci joxe sa alal muy ñi ci réew mi muy ñi ci bitim réew ñëpp ñu nekk ci commission bi ak ñi ci bokkut te bokk ci Tuubaa ci kanam ak ñi nga xam ne itam bokkuñ ci biir Touba kanam waaye fu Touba kanam yëngoo danañ gis seen seen seenu yëngu ca biir yëngu ba muy danañ joxe seen alal ànd ko ak noonu ñoo ñëpp ñu ngi leen sant képp koo xam ne def nga ci sab dërëm daal sëñ Abibu nee na mi ngi lay sant bu baax di ñaan loolee nga ci def yàlla na la ko suñ borom fulal mu jëm kanam at mu ne nga gën koo man sant mbooleem soxna yi soxna yi moom Touba kanam ñëpp maas nañ xam ne soxna yi ñoo ci man loolu moom ñëpp ko xam kon soxna yi ameel nañ leen ak cant waaye niñ mën a ci takku ci liggéey bi te jaay aussi social bi itam noonu lañ ci mën noonu lañ ci mën a taxawee te ci sonn kenn ku ne ñu nga jiite da nga leen ci sonn soññi di yëkkati ko joxe am na ci ne weer wu ne dañ koy def am na ci xam ne ñu ko mënul weer saa wootee danañ ko danañ ko def kon soxna yi itam amee nañ leen cant ñu nekk ci biir Touba Ca Kanam di jàppale waa social ci ci wet gu ñu leen mën a jàppale ñoo ñooñu sëñ baa ngi leen sant bu baax a baax di leen ñaanal jàppale googee ñu gën ko yokk tey ñaan ba ba ñu ci def rek nañ nañ am lu ko ëpp lu ko ful suñ borom moom noonu lay fayee loo ko lebal boo ko joxee benn mu tegal la ci juróom-ñeent muy fukk kon sant mën weer sant sant sëñ bi daal mi ngi sant ñëpp ñi nga xam ne ñooy waa social ñu dénk commission bi ak ñi xam ne dañoo bokk ci biir Touba Ca Kanam ci jàpp ci wet yi ñu ñi nga xam ne bokkuñu ci waaye fu ñu déggee woote na ci bis bii nag mu jot ñu def ko saa suñ ko defee ñi nga xam ne danañ ko ànd ak ñun ak fu ñu mën a ne ñi ngi leen sant bu baax a baax sant koo xam ne am na fa mu tàmbalee waaye amut amut fu mu yem seenu pay nag yàllaa ko yor ak sëñ Tuubaa yàlla na leen fay lu kawe seen njort ci bàkku sëñ bi di sant itam ñi nga xam ne ñoo doon def waxtaanu sunu sëñ Fallu bu sum sëñ Xasan ak sëñ Xaadim Bamba ak ñi nga xam ne lañ ko àndaloon ñëpp ñu ngi leen ci sant bu baax a baax ci seen itte yi yiñ bàyyi waxtu waxtu dafa jafe li gën a seer ci nit bu doomu aadama mooy waxtu ndax nit ki ay waxtoom rek la am te waxtu yi wu ci xas dem dootu dellusiwaat ci àddina dootoo ko dabuwaat te la nga ko xas sànq sànq rek ca loolu la dem kon nag ñoom ñi fab seeni waxtu jox ko Tuubaa kanam ñëw fii indi fi njàngale mu am solo Touba Ca ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax te di leen gërëm ci taxawaay boobu ak itte jooju di gërëm waa PRS bi ñu jàkkaar lool nga xam ne moom lu ñu fu wootee ñëw di ko teg nga xam ne mi moo jiite communication bi ñu ngi ko ñu ngi leen sant ñoom ñëpp itam ci jàllale li nga xam ne ñu ngi koy jàllale mbirum Touba Ca Kanam ci waxtu wu ne rawatina ci bis yu mel nii ñoo ñooñu itam seenu cant sëñ baa ngi leen sant teg ko ci loxo sëñ Moussa Mbaye kon cant gi daal mooy tàmbali wax ji ci nga xam ne moom tàmbali ko Cheikh Mamadou Mountakha ba ci man mi gën a suufee ci mawit yi gën cee ñàkk solo ñu ñëpp ñëpp am nañu dugg nañ ci biir cant gi noonu la ñuy sant ñu nekk ci diaspora bi ñëpp itam di leen ci gën a soññ gannaaw cant gi nag kon ab soññee moo ciy topp ab soññee mooy topp ci cant gi kon soññee gi mooy nu xam ne addina dañ fee ñëw war fee am diir bu gàtt laxas delluwaat te kenn ku nekk ci ñun xamoo kañ ngay dellu te ku foofu moom lu lu wax ji neex neex ak lu nett yi lett la yu bari bari li yàlla suñ borom mi bind jaam ñi moom àddina moom àllaaxira li mu waxal boppam kenn mënta ta wax lenn ba tegg ba tegg bi wax suñu borom te moo ne wa an laysa li insaani illa ma sa'a nit ki amul lenn ci bàmmeelam lu dul la muy jëf la mu jëf kenn ku nekk soo jamee sa bàmmeel sa jëf dong nga fay fekk moo la fay moo la fay dimbali sëñ bi nag li man mooy teg nu ci yoon wa jëm fa wa jëm fu baax ne nu yoonu baax yii bu leen ko wàcc te sëñ Tuubaa wàccee na ñun def nañ ko kon bu ñu xasee teg ci yoonu baax nag xamal na nañu li am njariñ addina ak àllaaxira xamal nañu li amul njariñ addina ak àllaaxira kon nag nun suñu bëggee mucc ñooy seet la am njariñ ñu nekkee la amul njariñ ñu wàcc ko kon dajale alal bokk na ci li gën a ñàkk njariñ ci addina ndax alal moom dem bàyyi ko fi baa mu dem bala fi rek nit dana am ba yàgg amatut nit dana am xëy bàyyi ko fi sëñ Tuubaa daana dénkaane mag ñi ne leen na ngeen moytu meraas ma duun meraas ma duun na ngeen ko moytu moytu daana wax it ne ëllëg gee ñu jëm am na fa loo xam ne du ko lijjantil kenn bokk na ci alal loolu sëñ Tuubaa daana ko wax daana wax ne fa ñu jëm du ma fay lijjanti kenn alal moom kooku fàggu sa bopp àddina suñ demee fa bàyyi ko fi yaa koy lijjanti sa bopp waaye man du ma la ko lijjanti loolu wax sëriñ bi la am na ci kilifa kilifa gu mag bu ma tudd aw turam goo xam ne bi mu tolloo ci waajtaay sëñ Abdou Lahad dafaa dem seeti ko di wax di ko seeti ci tawat ji fekk tawat jooju ci lay wàcc liggéey mu ne sëñ Abdou Lahad ah man de damaa damaa xaw a tiit sa ñëw gi de sant naa ci ndax tiit naa ndax damaa gis sëriñ Tuubaa mu wax ma ne ma daaw bii day moom am na ay mbañ limal ma mbañ waaye mbañ ya bokk na ci faatu bàyyi alal moo tax nag li ma am ci alal lépp bis nekk tey def naa ko addiya sëñ Tuubaa jox naa la ko koy bind ci aw këy lépp jox ko sëñ jox ko ne moom bu jógee kenn du ko meewaat ndax sëñ Tuubaa ci moom la ci ci ci ci ci ci biir nekk nekk ci biir tawat ji sëñ Tuubaa xamal ko ne ko fii dafa am mbañ mbañ mi bokk na ci faatu bàyyi alal kon loolu lu nit ñi ma xam la lu nit ñi war a bàyyi xel la faatu bàyyi alal amul njariñ alal yi la nga jiital sa bàmmeel loolu rek moo moo la cay moom nga cay jariñu sëñ bi daana wax ne aw askan bu ca yàlla joxee koo xam ne la am ëpp na ko na xam ne jox ko ko moom dong da koo séddaleloo ak ñam dëkkal bu ko joxee ci ab famille na xam ne moomu ko moo famille ba ñoo ko bokk bu ko joxee ci am réew na xam ne moom réew moo réew mu bokk bu ko joxee ab dëkk xam ko jox na xam ne moom moom dong moomu ko la ko ëpp moo dëkk ba ñoo ko bokk kon loolu nag ko nit ñi bàyyi xel bu baax a baax ci xam ne alali àddina jëriñu lu dut tedde ak teer ak ak ak tedde ak teerle waaye tedd nga ci ëpp solo mooy ja nga cay fàggu ëllëg te du jeex ndax tey jii moom loo fi mën a yor dana jeex te alal ji lu mu bari bari boo ci solee mbubb yaa ngi ñëpp ci yem boo ci lekkee mu wees boo tabaxee tabax yi tabax ba lu muy rëy benn nga ciy dëkk néeg ba lal ba fay nekk mënoo tëdd lépp te te bu ñu lay yóbbu ci armeel ya pel juróom-ñaari mètre perkaal sànge wala bu ko sax yaram jotut it lu tolloog yow ca la la jot lañ lay la yóbbaale kenn Moustapha ñu ne otom bii de moom sonnoon na ci ko jënd tabaxam bi sonnoon na ci nañ ko yóbbaale kenn mus koo gis te kenn du ko gis a tey mi ngi ñëw te kenn du ko tee te itam kenn ku nekk loo ko fekk wa maa lépp lu ngeen dawal ci suñu bawam da ngeen da ngeen ko fekk bu ëllëgee mu mën leen a jariñ waaye lu nit defut munu ko am kon bu nax suñu bopp alal yi àddina yii amul solo lu ëpp solo lii nag kenn mënu ko cee def muy dajale ci lu toll nii jëmee ko ci sa bokk jullit ñoo xam ne dañ ko soxla te mënu te mënuñu ko am ndax yonte bi sallallahu alayhi wasallam nee na jox benn ab jullit bu xiif nga jox ko benn tibum ñam moo gën tabax junniy juma benn benn jullit bu xiif nga jox ko tibum ñam mu lekk ko moo gën tabax junniy juma kon loolu li ci nekk ci tuyaaba yàlla dong moo xam ne mu toll te bax sàq bax sàq moo fi àddina dañoo am fuñ fuñ jamee misaal mooy nit ki li mu fàggu di ko dunde nit ki xam nga mën naa du ay magasin ba ba mu fees saa su xëyee dem tibb ca dunde ba yàgg mu dem fekk magasin ba tuuti des ca muy dem ba yàgg mu dem fekk magasin ba dara dootu fa nekk bu dee àddina moom mën ngaa dem fàggu jiwaat ñëwaat delluwaat ca magasin waaye bu dee àllaaxira nag la nga fa am boo xasee jeex da nga dootu am foo mën a demee foo mën demee di fa jëlee dara mooy li bi di wax ci masaali naan waa aqabul asyaai li amwaat wa dun la maal xayaati wala wala soo xatan faqat li nga xam ne saalaxen tan in kon léegi loolu li sëñ bi jublu mooy bàyyilu xel ci ne ña nekk baax sàq li ñu gën a bëgg mooy dikkaat addina doonte aw waxtu ñu def fi lu baax kon si foofu jëf dafay dafay jeex sëñ Tuubaa daan wax ne it fuuyu ak mawu bis pinc foofu baax sàq la am fuuyu ak mawu ndax ci fuuyu mooy am lu baax yi da koy fuuyoo ndax xamut kañ la bis pinc ci taxaw xamut kañ lay jeex ki nga xam ne am na lu bari da koy fu fuyoo waaye ki nga xam ne jeexal na takk amatul day maw ndax xelum kenn du dañ ñaan kenn xelum kenn du dañ may kenn kenn ku ne la am da nga koy da nga koy fuyoo fas yéene waaye mawu itam ku sa ku sa yiw jeex boobaa itam loolu nag misaal bi mooy addina yëpp dañuy wax ne nag bokk na ci yiw yu dul jeex yiw yi nga xam ne du fa jeex mooy sawxe ngir yàlla joxe sa alal ci yoonu yàlla te yàlla tax loolu nee nañ bokk na ci yiw yi nga xam ne bu ëllëgee du jeex kon loolu képp kuy dund te xam ko waa nga cee sonn loo am nga def ko ci loolu yi sëñ Murtala doon leeral ci kilifa yi loolu mooy yoon wi sëñ moom li mu fi nekk mooy dimbali xam naa moom loolu sëñ Murtala sëñ yu nee na mi ngi la ci sant bu baax ci li nga wax léegi ci kilifa yi tëju nga xam ne tëju gi li koy mooy dem ba amatuñ luñ joxe ak yu demee noonu nee na loolu moom ku ko waxal mu jël na loolu moom ku ko waxal mu jël te waxal nga ko ko kon ku leen ko waxal ñoom sëriñ si ñu jël kon kon te waxaal nga leen ko kon dafa mel ne yow wuutu nga leen ci tey noonu rek la demee nag noonu la deme loolu moom képp koo xam ne jooñ joo nga ak kilifa da xam lu leer nañ kon nañ gën a fonk joxe ngir yàlla ginnaaw loolu ñu ñëw soññee nag ci Tuubaa ci kanam jii nga xam ne dañ koo taxawal ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa képp ak bëgg a liggéeyee sëñ Tuubaa ci dëkk mbii na nga xam ne mës sa am ci kaw suuf lu ko gënal Tuubaa ci kanam sëñ bi mës sa am ci kaw suuf lu ko gënal Tuubaa su li mu nekk ci géej gi lépp mi ngi ñaan boromam mu delloo si ko Tuubaa di ñaan di li mu bëgg ci Tuubaa suñ borom nattu woon ko fi ba nga xam ne juróom-ñaar at képp la fi dëkk sañatu fee dëkk waaw dem ci géej gi mu ne ko dangay ngay génn dem mu dem mu dem mbàkke beew ba ba xëyee fa gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci sa safar dem tukki waaye li mu nekk ci géej waaye ba ba muy ni mu ñëwee waat tubaa ci guddi gi ñu ko fi indiwaatee guddi ñaa fukki fan ci weeru Muharram ñu jëlee ko Njaaréem indiwaat ko Tuubaa sëñ bi tëgaatu tànkam Tuubaa bi ñu ko jëlee Jolof di ko yóbbu Njaaréem bi mu tolloog dëkk bi suñ borom da ko ne waxuma la nga jàdd ci dëkk bi sa bët képp bu dalee dëkk bi sa liggéey sa dëkk sa sa bët képp bu talee ci Tuubaa sa sa sa sa liggéey yàqu nga xam ne sëñ bi daa gëmu ba weesu ko dem da jaar daaw xalim daam sëñ dam abdourahman foofu la jaar jàll njëriñ waaye mënut a jaar si biir Touba te loolu suñu borom da koo da koo tere booba loolu am natt gënu ko métti gënu koo diis te toole lépp taxut teewut la mas bëgg mooy ñibbi si fi waaye suñ borom natt ko ci dëkkaloowu ko fi kon ñi am tawfeex nun ñi am tawfeex yi dëkk fi dëkkal ko fi wax na noo góorgóorlu baax na ci lay tax dëkk bi mel ni mu war kon loolu Touba loolu dong ko tax a judd leneen tax koo judd kon ñu ngi ciy soññi taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp jàpp nañ ne nag ni ñu ko bëggee fuñ ko ne amee woon ba tey weesu nañ fii waaye teewu nañ ñi ngi sant yàlla ci liñ ci am te di ko ci géewam te ci sant Sëriñ Tuubaa bu baax tey so te ki gën a soññi sun bopp di ci soññ ñëpp di ci soññi bitim réew lu mel ne waa diaspora waaye bi ñu féete awam ñu ngi leen sant am na bis bu ñuy waajal ngir jaayante ñu ngi koy tàmbali le premier mai ba ba le 10 juin di ko tëj Espagne lu am la yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla nañ ci yàlla yóbbu defal na ci ndam waaye jaayante boobu nag ñëpp dañ ko war di bàyyi xel gëm ne itam yoon wi ak jaayante ñoo ànd waaye mi defoon nañ ko lu am solo la waa Thiès ñi ngi waajal bis lu am solo la France googu bis boobu sëñ Cheikh Amadu doon wax sëñ sëñ sëñ Fallu Fall ñu ko fay defal bis bu am solo la boo xam ne itam na ko ñëpp bàyyi xel yooyu yëpp yooyu nag luy yokk liggéey bi la loo xam ne buñ ci àggee Touba kanam yëg ni lii kat ab taxawaay la boo xam ne Touba kanam dong moo ko tax a jug daa war a tàmbalee Touba ci kanam yem ci am solo la kon bis yooyu nañ koy ñu ngi koy fàttali bàyyi waaye nag ñu gën cee farlu ci daal di joxe weer wu ne ñaar téeméer jaayante yi mënta ñàkk am na solo lool ñu ngi ciy soññee waaye nag nañu ci boole itam kenn ku nekk fexe bay dagg ñaar téeméer ña nga nekkal nga leen ciy soññ sa sa waju yë yëmanut wala sa ñaala jege ñaala yëmanut te nga man leen ñoo xam ñu ngi dund ñoo xam dunduñu nga di leen defaale te yàlla tax loolu itam nañ koy nañ koy bàyyi xel ndax Tuubaa ci kanam li mu ci dëkk bi ko amoon ba tey dëkk bi weesu na fi mu nekk foofu it nag danaa fi jaarale tuuti asle ab leeral ci Tuubaa ci kanam ak dëkk bi ndax dëkk bi day def ne ku dox ba womb ab tiwo ndox bu toj buy xel li nga ne ana waa Touba ci kanam daal di daal tàmbalee woo Touba ci kanam ku dox ba gis ab tëri bu yàqu nga ne ana Touba kanam daal tàmbalee woo waa Touba ci kanam ku dox lamp ab daanu nga ne ana Touba kanam daal di woo waa Touba ci kanam ba tax na loolu moom liñ ci daj liñ ci jot par ay bis tàmbalee si émi bu meeg nun ñi ak ñu yor ñi liggéey bi ñëpp kenn ku nekk ak kuñ xam ne sax doon nga dawa Touba ci kanam rek waxtu ne ñu ngi lay interpellé ci naan la nangam yàqu ne war ngeen ko defar foofu nag dañoo dama bëgg nit ñi xam ne ñaari yëf dafa am bu njëkk bi mooy yéene ji ñu amoon bi ñu jógee muy xalaat bi suñu Abibu joxe woon muy ñaari millions nit ñi kenn ku ne joxe ñaar téeméer ñuy am ñaari milliards par weer di am ñaar fukki milliards ñeent parat suñ ko doon am képp bala ngeen ñoo woo ci li ngeen ñuy woo dana fekk ñu defal ko suñ ko mënee defal ko kon kon nañ jàpp ne am na lu fii ñëw waaye nag ni ñu ko bëggee xaaju ñu ko ne amee dañ naan Touba Ca Kanam 7 pour cent la amagun téeméer bu ñu doon wut juróom-ñaar la ci am juróom-ñaar nag boo ci bu fekkee da nga wuttee mi am juróom-ñaar tey la la wax juróom-ñeent fukk a goo Kanam ko tax a jug a dajale ngir mën cee def ko waaye bi mu bu am bi am mi ngi ciy def li mu man ñëpp a ngi ciy teg ci kaw loolu it mu am leneen koo def rek ci bëgg koo ko ni ko nit ñi jàppe nga dañu jàpp ne ko waxee Touba Ca Kanam subaa bu ko defewut rek Touba Ca Kanam dañu cee yaafus waaye waaye waawoon nañ ko mën a defal déedéet demeewul noonu ndax Touba Ca Kanam bi muy judd daa fekk dëkk bi lenn lu nekk sëñ bi am ñu ko dénk bu dee ndox mi am na ñu ko dénk bu dee tali assainissement yeeg yëpp am na ñu nekk seen loxo loolu mbirum état la Touba Kanam nag lu mu ciy def lu ne faaw bala koo def dana ca diisoo ñooña waxtaan ci ak ñooña bañ déggoo ci ñu doog koo def waxtaan yooyu nag léeg-léeg mu am ak déggoo am ñu mën a def léeg-léeg mu am ak ñàkk déggoo am duñ mën a def loolu dafa wax leer ci nit ñu xam ko ndax koo xam mooy dëkk bi day dëkk dëkk boo xam ne suñ bee ko yilif ko kenn ku ne mu am pàcc bu mu la jox di la ko di liggéeyloo Touba Ca dëgg la wax nañ koo wàcc lu ne ndax moom moo jug ne daa bëgg a solutionné dëkk bi ci lépp lu jafe-jafe mu saafaral ko dëkk bi kon ku am gis jafe-jafe am ko wax Touba Kanam waaye nag Touba Kanam bi naa leeral nit ngeen ñuy saafaraloo mooy benn mooy lu ko mën a saafara dajeewu fi ni ñu ko bëggee bi ci topp itam mooy amuñ sañ-sañu lu ñu bëgg a saafara daal di xëy rek gis ne tali ba yàqu na ñu daal di dem taxawal sa suñu ko daal di koy defar wala teew ba yàqu na ñu dem ko loolu lu mu ci mën a doon am na loxo yu nekk loxo yam nekk nag faaw dañ ci waxtaanee ñoom te juboo ci ñu def ko suñ ca waxtaanee ak ñoom te ak déggu amu ca duñ ko mën a def ndax loolu itam daa bokk ci ndigal li ñu suñu a doon nañ ciy ma ci mën a joxe misaal mooy yoonu da wax man wi nga xam ne ñu bari ñu ba fii nii nii man bu bëgg démb am na kilifa gu ma ne yéen Touba ca war a leeral ne tiwo yi nga xam ne li ko waral mooy assainissement bi moom moom lañ jot a def ba ndox mi yàq tali ba assainissement bi itam tiwaay yi tiwaay yi nga xam ne moom lañ ko jëndoon ñu ko caa def bu neexee mbooloo mi ku jug mën nga ko xool mi ngi fii mi ngi fii ci bunt ci ñu jàll ko fi àgg nañ sax dem ba koy bëgg jaayaat ngir ñàkk koo mën a def ndax ñi yor loolu dañoo wax ne ñoom ñoo koy defar nañ ko bàyyi ñu defar ko te ñoom ñoom la ko sëñ bi teg seen loxo suñu jàkka ci ñoom lañ te mën nag mooy leewal nañ ko sëñ bi maa sëñ bi mi ànd nañ ba ci sëñ bi ñu leeralal ko jafe-jafe yooyu yëpp di ko ci diglu lu mu ñu sant ñu def ko fu mu ñu ci yem loo ñu yem fa ñun loolu lañ mën ndax Tuubaa ci kanam moom genn kilifa la am muy sëñ Muntaxaa ci lay jële ndigal ci lay jële tere waaye nag li ñu dénk keneen moom bëgg ko caa fekk nag def ca noo ne ëllëg si biir dañ naan Tuubaa ci kanam ñoo tooñ ndax xam ngeen daaw jéeg bi fi ndox mi amee mënn mi ba bassin da waxmaan ba fees kër ñang bi fees ba da waxmaan dañoo daal di wax ne Tuubaa ci kanam ñoo ci bagage seen i tiwo ba tax ndox mi attanatu ko ba tax inondation bi am te fekk demewul noonu ndax bañ ko laaxante waxtaan nañ ko ba jubóo ci bañ seet ba mën a xam ne lu mën a am la ñu doog ko def te teewut bu yëf ñëwee dañ ko teg suñu ne na kon ñëpp xam mbooloo mi dañ ko xam bu a baax xam ne Touba Ca Kanam moom yéeneem ak pastéefam ak ku bëggam mooy ba du fi lu fi war a nekk dëkk bi daaw du fi yàqu wala lu fi yàqu buñ subaa ñu ko waaye nag mënewuñ ko noonu ndax amewuñ noonu kàttan gi amewuñ noonu sañ-sañ bi loolu na ko ñëpp xam te bàyyi xel dañ woote waat nag mooy kàttan googu moom des kon nañ gëm ne mën nañu am kattan gi moom kattan gi moom sëñ Tuubaa yàlla fàggul na ko taalibe yu ko man kon ñoo ngi soññe waat ci loolu nag kenn ku nekk ni sëñ bi waxtu wu ne ma di ko soññee defaan na ci ab soññee ngir yàlla jëmi sëñ Tuubaa dafa am loo xam ne daa nañ xalaat na mën naa am wala mënta am waaye léegi ku ne xam na ne moom Tuubaa ko yebal moom ku ne xam na ne wane na yoon woo xam ne mën naa am mooy ay nit ñi mën a demal seen bopp loolu moom mën naa am te it mën a am gi moom gis nañ ko bunt kër bi boo fi génnee daa ci jàkkaarloo garab yoo xam ne Tuubaa ko ci kanam ñoo ko fi def nga gis ay lamp yu tàkk Touba ci kanam na ko de loolu lépp ne da nga xam ne kon lii mën naa am kon nañ dox jëm ci li koy taxaam lañ tax nag muy def benn bolo kenn ku nekk gëm ne yaa war a defal Sëñ Touba dëkk bi te ñaar téeméer dong lañ laaj nga joxe ko tàmbalee kilifa ñëpp di ci kon daal loolu mooy soññee bi ne ñu ngi ko ci dolliwaat yi gën a di gën a garamaan ñëpp di sant sañe bu baax a baax tey koy seeraloo Touba ci kanam yëpp itam wax dëgg yàlla kilifa gu mat kilifa la nun ñi nga xamne itam mu mm, ñu doxale digëm mbooloo mi di ñu liggéeyloo ñun tam ñukay koy seeral sunu cant ak cyant mbooloo mépp ci mom waye di sant mbooloo mépp itam ci ànd bi ñu ànd liggéey bi ak ni ko ànde di ñaan yalla ci bakki sëñ touba yalla nañu yalla dimbali ci bakki sëñ touba ba yéene ci am ci touba ci kanam ñu man ko defee nañ ko bëgg di touba nangul nako kon sant nañ bu baax lu ci dess ci man mi ñu ko wax loola lu ci mat nak ci ko wax la waye ci suñu boobam la waye ci ko wax mom xëy na ak tele waxam motax kon mbët wax ji mën ta mat ta leer lu ci manke ci man la waye ci yi mo wax ju bat sekk ju leer nañ ju jup xocc yu tegu ci yoon la ma waxoon kon nag mi ngi sant ñëpp liggéeyam ñëpp ñu mbooloo mi ñu ngi koy sant di ko ñaanal suñu doomam yàggal ko ci kanam mbooloo mi yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha yàggal fi ñëpp ba lii ñu defoon su déwénee yàlla nañ def lu ko kawe ci bàkk Sëñ Tuubaa waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Abdou Lahat sëriñ bi di ñaan rek sëñ Mourtala daf maa wax léegi ne Ablaye Dia démb ci guddi rek woo na ko ba jox ko fukki tonnu ceeb kon mu ngi koy sant bu baax a baax di santit soxna Fatou Dia sëriñ Abibou ci taxawayam waye soxna Aswaaj mi nga xamne kayar lay joge yaakaar naa ne nañ ay yoon ay atiat ak soxna mo Dukure di dem ci santian yi fu na dem nañ fa yaakaar naa ne moom it koy sante di sante ñep di len xamal ne ni ñu def ci eh, ci koor gi nga xamne dog xibla dox ay kilomètre ba gisatuñ lamp gisatuñ tabax gisatuñ aw yoon gisatuñ ñoo xam ne am nañ barabu fajukaay farañ dem joxe fa ay ticket ñooñu ñooy jël seen ndimbal ci magasin yooyu korite gi tamit incha allah noonu la commission sociale di defaat day yokkaat lim bi jël ab lim fëgg nit xaaju gudd ne ko commission sociale moo la ko jàppalee ngir bu ëllëgee nga bañ a gàddu ci sow bi di wuti loo kore yoog sa njaboot toog leen loolu korite daf koy def bu jàllee delluwaat encore jóguñu ci sax ci ñi tawat ñu bëri ci dëkk bi dañoo tawat waaye yàlla xam na ne mënuñoo faju ndax amuñu luñu fajoo dañuy ragal sax dem hôpital parce que dem xam nañ ne ticket bi rek mënuñu ko am ordonnance nag boo leen ko bindalee dañuy ñëw rek muutuwaale ko toog loolu li ci commission sociale yor waxtu wu nekk ba day yokku moo tax benn sànni la nga jam ci ay picc yu bëri te yàlla ak yéen a tax commission sociale ban loolu yëpp kon nag ay ca bu kenn xeeb bu kenn yéem rek na ñëpp japp comme ni ko sëñ Ablaat kon dal ñu ngi sante soxna yeb babakar ko fàtte sant ñëpp bayiwul kenn fépp bayiwul fenn kon ñu ñaan seigne abi bu ñaan bu tala loxo ñu yag ko teewee waaw babakar de xam nga social la bëgg laajal dara social mom waxtu ñu dajé dañ fa waruñoo dajé ci benn murit te kenn ku ci nekk làmbul sa jiba ne lii maa ko def ci social loolu dafa wóorul sax surtout nag ci weeru koor yow da ngay daal lu bëri xala <laughs> fal ñetti junni nit lañ waxoon ëppal nañ ko ba ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar sëriñ laa dégg ngeen ni mu ko waxee amaat nañ ay yéene ci daara ju mag yi di université bi ak yeneen mbir yoo xam ne liñ bëgg suñu ko amee ba desal daañu ko ca def te jàpp naa ne li ñu wax fii mooy ba tey ñu ngi koy wut waaye lépp dajeegut jàmbaar ngeen ci gépp anam ak ci gépp fànn def ngeen ci itam nag waaye nag ndolleen day dàq day gën a neexal mbir kon nag képp koo xam ne man ngaa dolliwaat maanaam man ngaa defaat ab jaayante jëme ko ci commission sociale bu Touba ci kanam ci sa poos moo xam ci kayitu ñaari junni bi gën a kawe la moo xam ab junni la moo xam 2000 la moo xam 1000 francs la moo xam 500 la ba ci pièce juróom fukk wala 200 wala 100 francs kenn ku ci nekk daal la nga desal sa poos rek ñu gën koo tàbbalaat ci mu gën a baax gën a neex ñi des te amuñu tey xaar liste d'attente bi ñu mën leen cee tàbbal kon loolu yaakaar naa bu ñu ko defee dana am solo loolu Serigne Cheikh kon loolu nañ ko ci doxal rek ndax euh, jotaay bu Touba ci kanam daje fa ba jigee fa te xam na am na ñuy laaj te liñ leen jox amagut ñu bàyyi mu sedd noonu daawu ni demee tey wër ne demee kon nag kenn ku nekk làmb ci poosam murit lu waay am lu waay man euh, ñu def ko ji su ko defee Serigne Abibulahi Mbacke daal di def ñaan bu ñu paree itam dem seeti magasin yi euh, jërëjëf Baye Fall kon soxna yi yéen ñëpp rek ak góor ñi yaakaar naa desal dara sa poche bu du aajo ju mën ju mënta ñàkk lool mbaa du medd euh, fi ne li ñu poche yëpp daa ah tey de gis naa social koo xam ne bariwul lu ma koy gis de <laughs> kon nag ay ca murit rek ay murit waaw nañu xam ne daal laaj bi am na lu des ci ñi ñu war a jox te fas nañ yéene ñëpp am ba am ñeneen ñu bëgg a jox ñoo xam ne tudduñu leen sax nag te yéene ji mooy bu ñu amee liñ bëgg buñ desalee jox leen. lu poche yeeg posé rek. nañu ko ci tàbbal te xam ne ñi ñu koy jox aajo woon nañ ko te ñu leen jox itam du doy kon nag ay ca morit ay ca morit ci soxna yi ak ci góor ñi ak ci ñëpp rek su ko defee rek bu ñu paree tàllal loxo yi sëñ Abibulahi Mbàkke def ñaan ñu wër magasin yi muy juróomi magasin yi nga xam ne Touba Ca Kanam samp nañ ko Touba Ca kat fii ne social moom xeebut yéemut waaw xeebut yéemut fi mu ne baax na waaye day gën a baax rek ndool leen day tax mbir gën a neex kon nag ay ca murit suñu mbokki soxna yee góor yàlla yi ñëpp rek poche dal lo ci sebelum bum fi lo deelu di medde bu dee lu mënta ñàkk la waaw ah. bamba ci liggéeyub sëriñ bamba acca murid ci liggey bi ñew leen ci liggey bi nañ ñëpp fasaale seen itte ñew leen ci liggey bi acca murid acca murid na ñew mu gaaw bu ñu paré na ñepp na tek talal seeni loxo nangu ñaan fas ci ñu fas ko yene fekke ak deweni deweni deweni déwén sëñ Abibulahi def ñaan bu ñu paré nak délégation wala bokk mbolo mi andono ci ñi man tam jup de man dem seeti junniy magasin yi nga xam ne samp nañ ko ci dekk bu sell bi di Touba kon fu way tollu na taala loxom serign bi def ñaan bu ñu nango ñaan ba pare nak door jëm ci magasin yi nga xamne samp nañ ko ci dekk bi war leena seeti door tambali liggey ba ngir sedd ñi nga xamne jotto nañu jot seen i seen rosi ayca ay ayca na kayit di mag yi ñëw ànd gi ci digg bi trois cent wuñ trois ah, cent wuñ mën naa dem social ba tey def nañ ko social Soul bi nekké ci Touba darul manan ni lañ ko fas yéene lu jitu journée sociale bi dañu amal recensement ñu war ko door ci le 18 mars 2023 ci mboolem quartier yi nga xamné ñu nekké ci Touba te yeyo gi leen dimbal djébal leen ay ticket yo xamné ne dañ leen yebal ci ay magasin yo xamné mo leen gën ngir ñu mëna fa djéli dimbal yi ñu leen jox social Ramadan édition 2023 wara doon le 1er avril 2023 commission sociale bu Touba ci kanam di ci wo ñëpp bayiwul kenn waaye di ci tàllal loxoom képp ko xamné jëf lu baax ñor na la nga ñëw and ñoom ngeen ñu jàppale néew ji doole ji nga xam ne ñoom nekkee ci dëkk bii di Touba képp ku ci bëgg a sa ñàkk mën nga ko def ci numéro bi am na Orange Money am na Wave muy 77 ngeen def ko ci numéro compte bancaire bi affiché ay waleen murit nañu ànd roy Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ndax royukaay la ci taxaw néew ji doole ji nga ñaanal ñu ci ba loolu sëñ bi waxal ko bi yàlla fa wala xiyaali mën xasan kulli saa yi madina social Touba Ca Kanam yi mën koo kii wajali ay waleen murid nañu ànd roy cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke moom sëriñ basiiru xalif général des mourides ndax at mu jot jëfam moo jiitu ci commission sociale bu Touba ca kanam commission sociale bu Touba ca kanam ci njiital sëriñ muxtada